day ñëw nag ci yi nga xam ne ñooy yàq njàpp dafa wax ne yëpp njàpp dañ koy def ñetti xaaj yoo xam ne am toj la ak loo xam ne du am toj waaye day sabab am toj ak loo xam ne nag du jëmmi toj du sababit am toj waaye nag teewul ñu ne dana toj njàpp dafa jëkkee am toj am toj buñ ko waxee fii mooy sépp sobe soo xam ne yàlla dafa dogal mu baaxoo génn ci buntu suuf wala ci buntu sawukaay lépp loo xam ne lu yàlla dogal la mu baaxoo génn ci benn ci ñaari bunt yi bu génnee te koo ko wéradiwut nga xam ne na muy génne normal na bu génnee rek daldi toj njàpp ma yooyu nag ni mu ko waxee fii juróom yaar lañ yoo xam ne juróom benn yi góor ak jigéen ñoo ca yemoo am ca benn boo xam ne jigéen rek moo ko féetewoo mooy tonge ndox mu weex mi nga waxoon ne bu jigéen dee bëgg am doom day génn ci ab sawukaayam gannaaw boo weesoo juróom yaar yooyu dana des yeneen yaar yoo xam ne tudd leen waaye mën ngaa jëkk a tudd juróom yaar yi nga xam ne ñoom la tudd ba noppi juróom benn yi nga xam ne góor ak jigéen ñoo ci yemoo rek mooy saw ak xayta ak ngelaw li génn ci buntu suuf ak madiw madiw ndox mu weex la moo xam ne du far tey loyox góor am na ko jigéen am na ko kuy xalaat jote góor gi jigéen na muy demee mbaa bu fekkoon ne góor gi day xool jigéen ba am bànneex ca xool ba wala muy fowanteeg moom ba am ca bànneex xëy na ndox mu weex moomu génn ci ab sawkaayam ak waddiyu waddiyu moom it ndox mu weex la muy génn ci sawkaay bi waaye day far li koy ëpp ak génn nag mooy kooka tawatoon bay door a wér deretam manqué wala mu amee sedd bu dee saw ba ca mujjug saw ma xëy na ndox mu weex moomu te far génn maanaam nag mu saw ba raxas dem bay jàpp mbaa mu jàpp ba noppi mu door a génn ak man yi moo xam dafa génn te àndut ak bànneex ba ko daa génne man yi mën naa génn te amut ak daray bànneex ni ki jiit fett ko rek man yi daal di génn ci moom kooku mettit la àndal waaye àndut ak bànneex mën na ànd ak bànneex it te bokkut ak ba ko daa génn ci aada mel ne ay noppam di xesen mu wokk ko rek am ca bànneex li ñuy wax jurgóotu man yi daal di génn yooyu yëpp nga xam ne man yu génn te àndut ak bànneex wala ànd na ak bànneex waaye bokkut ak ba ko daal génn ci aada day toj njàpp rek njàpp cay war ak raxasam la taq waaye du waral sangu farata man yi may waral sangu farata mooy di xalaat xalaat bu yàgg wala muy xool xool bu yàgg wala muy laalante ci yaram ba mu génn kooku moom bànneex ba ko génne daana ko génne ci aada mooy waral sangu farata ndax su mën yu génnoon ci jote ci sawukaay moom dangay daal di wax rek ne jëmmi jote ga rek bu mën yu génnutoon it su bopp sawukaay ba duggee rek daal di waral sangu farata moo tax juróom benn yooyu moom la góor yi jigéen bokkale ci toj njàpp te doon jëmmi am toj bi jigéen jagoo nag mooy li wax tonge ndox mu weex moom mu nga xam ne bu jigéen dee bëgg am doom day génn ci sawukaayam yaar yi nga xam ne borom téere bi waxu ko nag benn ba mooy jigéen ju amee deret bi jàngoro te lam koy dikkal moo gën a néew nde bu fekkoon ne saa yu ne noonu la koy dikkale mbaa la ëpp ci jamonoom noonu la koy dikkale mbaa ku xaaj jamonoom noonu la koy dikkale kon du tojati njàpp ma waaye dañ ko yemalee ku njokkale rek daañu wax njokkale léegi ci kanam loo ci xam ne daal la gën a néew ci jamonoom la koy dikkal lay door a toj njàpptu waaye bu ko dee dikkal saa yu ne mbaa la ëpp ci jamonoom mbaa xaaj jamonoom rek muy deret jàngoro ji nu toll muy njokkale bee ñuy bëgg a wax du tojati njàpp nga dolli ci nag jigéen ju jotee góor ba noppi dem ba sangu farata ngir jote ga mën yu door génn ci sowukaayam loolu it jàpp rek moo ciy war waaye kenn du ko wax ne ko sanguwaatal farata beneen yoon daa waxoon ne lu génn ca buntu suuf ba mbaa ca buntu sowukaay ba te baaxoo faa génne bu génnee ci wir mooy te njàpp bëgg laa misaal nag li nga xam ne moom baaxoowute génne ci buntu suuf mbaa sowukaay nga xam ne bu ca génn itam du tax njàpp a toj bu misaale ko ay doj walay sax doj wala sax loo ci xam ne ca biir ba la sosoo du kookaa wann doj wa mbaa wa mu wann sax wa mu génnaat ca biiram la doj ya jekki-jekki génn rek mbaa sax ya loola du toj njàpp ma bu àndoon ak dara ci saw mbaa dara ci xayta itam du tax njàpp ma toj lu may nag lam àndal ci saw mbaa xayta daa baree bari ba nga xam ne ku dikk da ngay fàtte doj yaag sax ya ndax bari xayta yaag saw ma ca ànd su boobaa de kon dana toj njàpp ma ba tey nee nañu deret mbaa dëtt bu génne woon ca buntu suuf ba mbaa ci buntu sawukaay ba itam du tax mu toj njàpp ndax ñoom baaxoo ñoo génne foofa day am na ñu wax ni ñoom buñ génnoon ànd ak dara ci xayta mbaa dara ci saw njàpp ma day toj am ñu ne déedéet mook doj ya nga weesoog sax yeeg leneen ñooy moo rek lu ci génn te ànd ak dara ci xayta mbaa saw itam li fay bëriwut lool rek du toj njàpp ma waaye nag saw ma mbaa xayta su baree lool moom ba dañuy fàtte lam àndal génn di tudd saw ma xayta ya ñu daal wax ne kon njàpp ma toj na dangay laajte ba xam ndax kon loolee génnaale ci saw mbaa xayta te du doj njàpp ma ndax dana ko mën a julliwaale wala faaw da koy dindi su fekkee ne bés bu ne loolu dal ko donte benn lay doon te buñ nee bés bi mooy guddeeg bëccëg kon jéggal ni kooku mën na koy julliwaale waaye su fekkee ne day gind rek nag di ñëw su boobaa du ko mën a julliwaale faaw mu di ko dindi muy mbind doy waar loo xam ne du toj njàpp te faaw nag nga war koo raxas tàggoog moom bala ngaa julli mooy loolu nga xam ne moo génn ca buntu suuf ba mbaa ca buntu sawukaay ba di loo xam daaw sa génne ni ki aw xeer ba noppi nag ànd ak saw mbaa xayta moo xam ne bëriwut bañ nekkoon loolee génn du toj njàpp ma waaye ñu teg ci ne su fekkee du fi ne mu dal ko moom su génnee rek njàpp ma ci boppam tojut waaye war na ko raxas du ko mën a julliwaale moo tax daañu ko caxee di wax naa ku demoon bay julli sobe génn ci moom sobe sa tojul njàpp ma te du tee mu war a dagg julli ga dem dindi sobe soosee te sobe sa ci moom la génne génne itam ci fa sobe baaxoo génne waaye gis nga ne nee nañu tojul njàpp ma waaye nag ndegam day gindi di ko feeñu rek nekkul bés bu ne kon su génnee mu war ko raxas bu mu set te fekk na njàpp moom tojut koo xam ne yàlla defal ko buntu sawukaay ak buntu ba xayta di génne mbaa boog defal na ko ko waaye da koo sakk amul buntu bu dara mën a génne bu ko defalee ca suuf bàq ga ab bën bën boo xam ne xayta mbaa saw da cay génne dañuy jàpp ne kon loola bu génnee toj njàpp ma ndax kon bën bën boobee ko yàlla defal moo wecci buntu suufam ak buntu sawkaayam la génne ca bën bën boobee dana toj njàpp mooy mu nekk ca ron bàq ga fekk moom kooka amul buntu suuf amul buntu sawkaay mbaa yooyu dañoo fekk amuñu bunt man nga ne bën bën ba ko yàlla defal mën naa nekk ci ron bàq gi mën naa nekk fa taru bàq ga jëm ca kaw ku ci mën doon ci yooyu yaar it mën na caa boole ñaari bunt yëpp lu bunt saw meeg bunt soob yëpp bokk sakk wala benn sakku ja wala benn ba sakk benn ba bañ a sakk ak lu ci mën doon rek takk-takk bi ñu la jox moom jàppal ne rek fa la jàpp may toje mooy mooy bën bën ba nekk ca ron bàq ga te fekk kooka amul fenn fu saw di jaar mbaaxita te na ko doomi aadama daan amee kon daal bën bën ba la ci génne moom ci saw mbaaxayta ak lu baaxu génn ci ñaari bunt yooyu rek bu génnee ci bën bën boobu daal di toj njàpp ma daa wax ni nag lu yàlla nattoo doomi aadama muy génne ci buntu suufam mbaa ci buntu sawkaayam ba ñu waxoon ne loolu toj njàpp la bu fekkee ne kat moom daa wéru di ba loola na muy génne normalut dañuy seet su fekkee ne jamono bu ne noonu la koy def mbaa li ëpp jamonoom noonu la koy def mbaa boo xaajee jamonoom benn xaaj ba noonu la koy def loolee kon bu génn itam lu tojati njàppam mu ne ku yàlla na too saw mbaa xayta mbaa gelawal mbaa masiyu mbaa waddiyu mbaa maniyu di génn ci loolu ci wéradi te mel noonu ñu wax kon du toj njàppam mën na génn sax muy jàpp su fekkee ne nag la gën a néew ci jamonoom la koy dikkal boobu rek lay toj njàpp nga xam ne moom daal boo seetloo lañ koy dikkal ci bés bi la ci gën a néew lay doon waaye la ci gën a bari moom day mel ne koor ci dara dalu ko bi nee bés bi lañuy jublu guddeeg bëccëg yaar yëpp ngay boole muy bés bi tool na am nañu ne su fekkee nar naa jax-jaxi xelam kon bu ko si amee wéra bi rek mën naa jàpp ne lay génn du tojati njàppam balaa nekk di jax-jaxi di am ay jafe-jafe ci wàllu jaamu yàlla am su fekkee ne nag loolu génn ci moom te di wéra bi saa yu ne noonu la koy def kon duñ fekk ci moom muy jàppaat say bo rek njàpp mam yore mu doyloo ko rek su fekkee ne nag la ëpp ci jamonoom mbaa boo defee jamonoom ñaari xaaj benn xaaj bi rek la koy def noonu kon wax nañ ne njàpp ma sax tëjut waaye daañu sopp nag julli bu ne bala ko julli rek mu jàppal ko njàpp mu yees ndax gën a sàkku tuyaaba te bu ko neexee ba tey mu doyloo rek njàpp moom yoroon bu fekkee ne sax yooyu jamono dafa sedd mbaa ndox jafe mën naa doyloo rek njàpp moom yoroon njokkale moomu nag àtte bi nga ci wax danga koy wax ci jigéen ju amee dereti jàngoro moom itam bu fekkee ne li ëpp ci jamonoom noonu la koy def mbaa lépp jamonoom noonu la koy def mbaa boo xaajee jamonoom bi ne jamonoom mën nga ne bu dee bëccëg rek muy benn bis su fekkee buñ ko xaajee benn xaaj ba it noonu la ko cay def yooyu yëpp njàpp ma du doj waaye nag bu fekkee lu gën a néew ci jamonoom la koy dikkal rek lu bokk ci loolu mel ni ku wér kon saa yu dikkee rek toj njàpp ma daa waxoon ne yi toj njàpp dañ koy def ñetti xaaj waxoon na ci benn léegi mooy am toj jëndi sobe mu teg ci bu ñaareel bi ne mooy loo xam ne day sabab am toj lu mel ne nelaw yu diis mën naa tax kooko génn ngelaw ca buntu suuf ba te du ko yëg lu mel ne góor mbaa jigéen kenn laa ca moroom ma mën naa tax mesure génn ca moom rëccu xel mën naa ame ci nelaw yu mu tudd mën naa ame ci xëm mën naa ame ci màndi mën naa ame ci ak ndof ni ki say màndi ga moo xam màndigu araam la ni ki naan sàngara wala màndi goo xam ne araamut ni ki lekk aw ñam rek mbaa geneen naan goo xam ne dawul màndal rek li ki am soow mu daal di koy màndal ndegam daal tàggoo naag sagoom rek moom bu sago su dellusee na jàppaat saa yu demee ba xelam nekkatu fa woon rek muy bàyyi wutoon xel ci boppam nekk dara nelaw nelaw yu diis mooy nelaw yu am doole yoo xam ne ba kenn waxee fi moom kàddu gu xum ba du ko dégg ñu mer ci loxoom ba mu rot du tax mu yëg ko kenn mën naa dugg ba génn te du ci yëg dara kon nelaw yu diis la mel na ne booba àndoon ak xelam nelaw nu mu tudd nag bu ko seeyee doon nelaw yu am doole moom dal nay yàq njàpp ma moo xam daa yàgg moo xam dafa yàggut moo tax mu ne walaw kasra su doon nag nelaw yoo xam ne diisut nga xam ne ku wax fi moom mu dégg ku dugg mbaa ngay génn mu xam ko yëg ko li mber ci loxoom bu rotee mu yëg ko yooyu nelaw moom donte yàgg na itam du tax njàpp ma toj waaye nag bu ko see yàgg ñu topp mu jabaat ndi sax waru ko su nelaw ya diisut yëggul nag boole ca jàpp waru ca te it sukkuñu ca jàpp li ñu wax ne mooy sabab am toj di ca tudd benn muy dem ba tàggoog sagoom mu tekki nag ki nga xamee ne mu kàllaf la jàpp ba noppi laal koo xam ne moom ci buñ seetee rek ni yàlla bind nit ñi mën a am bànneex ca laal ga mel ni góor gi nekk mu kàllaf jàpp ba noppi laal soxnaam mbaa mu laal jigéen joo xam ne jaambur la ci moom yooyu yëpp ci ni yàlla bind nit rek mënees na ca am bànneex mënees na ko caa bañ am itam nga xam ne kon góor mbaa jigéen ma yemoo ko ci xam ne jàpp na ba noppi laal ko ca def te kam laal buñ ko dee seet ci ni yàlla bind nit mën na ca am bànneex kon bu fekkee ba muy laal bànneex a taxoon muy laal njàpp ba toj na mu am ca bànneex ba ak mu ñàkk ko ca am ñoo yemoo su fekkee itam ba muy laal jublu ci woon bànneex waaye far na ko ci am ba tey njàpp ma toj na ku ci mën di laal nag la mu laal ca moroom ma mu néew mu bari ñoo yemoo moo tax mu ne bu ko laaloon ca wewa wala ca kawar ga wala sax loolu jëm yaram wa dafa laal ci kaw la mu sol ñoo ci yemoo àtte bi noonu rek lay demee su fekkee ne nag ba muy laal jubluwu ci woon bànneex te amu ko ca mooy wa illaa falaa ji benn boobu rek mu dul soj dañu yemale nag laal googu ak fóon góor mbaa jigéen ku càpp noppi fóon ka ca des ku ca fóon moroom rek te jublu ca bànneex am jàppam toj na ko xam ne fóon ba jubluwu ci woon bànneex waaye am na ko ca te tey toj na koo xam ne nag fóon nga jublu ci woon bànneex ni ki tàggoo rek la mbaa fóon yërmande te bànneex ba amu ca moom du toj loolu mooy àtteeb ki nga xam ne moo laal te ñu laal itam dañuy wax ne bu fekkee ne kàllafe na te daa jublu woon kookee laal ko kon bu ko kooka laalee rek am jàppam dal nay toj bu fekkee jubluwutoon kee laal ko waaye ba mu ko ba mu ko laalee am na ca bànneex ci laal ba mu ko laal it ba tey jàppam toj bu fekkee nag bëggutoon kooka laal ko te ba ko ko laalee amu ca bànneex nag kon du toj foo ci gimiñ day moom lañ jàpp ne faaw mu toj njàpp ma moo xam ko fóona moo xam kañu fóon la nga xam ne fóon ci gimiñ moom bi ko bettoon def ko koy dutee jëlal nañ ko fóon waaye moom mañ fóon du tey am njàppam toj waaye nag fóonub gémmiñ boobu li ñu koy diisal diisal yépp gët su ko koo ko defee ngir tàggoon teg ka mu fóon ndax kooko day bëgg a dem wala mu fóon ko rek ngir yërmaane ndax dafa am tiis wu ko dal kon du toj njàpp te it fekk ñuy yaari kàllaf mbaa boog ka kàllafe fóon ka nga xamee ne moom daa yees na am ci moom bànneex ci aada ci tax ñu naa góor mbaa jigéen bu ca kenn ka laalee wala mu fóon ka ca des te it muy koo xam ne ci aada daa yees na am bànneex ci moom dañ ci bëgg a génne lu mel ne kee di ndey kee di doom góor ga fóon yaay ja wala yaayam fóon ko daañu su ci am bànneex wala góor gi fóonanteeg rakkam ju mbokkal ndey ak bàyyi ba tey loolu daañu su ci am bànneexub sëy fóonante gu mel noonu mbaa laalante gu mel noonu du toj njàpp te lu ñu wax ne su ko kàccooree ba nga xamee ne day fóon yaayam di ci jubloo am bànneexub sëy mbaa rakkam mbaa magam kon bu ci xasee jublu bànneex rek njàpp ma dal ne toj bu fekkee ne jublu wu ci woon ci lal ga mbaa foon nga bànneex yi waaye far na ci amit dana toj góor mbaa jigéen koo ci xam ne xooloon na moroom ma mbaa muy xalaat moroom ma ba am ca bànneex waaye taxul nag dara génn itam jëmmi bànneex boobee rek du tax njàpp toj bu dee góor gi moom bu ab xewkaayam jógoon ngir bànneex ci xalaat ku muy xalaat jigéen mbaa xool gum ko xoolit waaye dara génnul rek du tax njàpp ma toj mu ne ba tey xale bu jigéen boo xam ne amul ci kenn di am ci moom bànneex ku am ci moom bànneex nga xam ne day ko féexlul dara rek xale bu jigéen bu toll noonu laal ko du tax njàpp a toj nee nañu laal sawukaay ba sax du tax njàpp a toj bëx yi ma itam mel ne laal am xar wala ay bëy mbaa leneen raay ko rek am ca bànneex du tax njàpp a toj waaye nag nee nañu doon nga loola doon bëx yi ma itam du tee bu laalee fayukaayu bëx yi ma ba te jublu ca bànneex rek am njàppam dal nay toj bu fekkee jublu ko ci woon waaye far na ko ci amit ba tey am njàppam dal nay toj yi sabab toj njàpp wax na ci yaar muy tàggoog sagoom ak góor mbaa jigéen kenn laata moroom ma mbaa mu fóonanteeg moom ci nee ñu ko waxee léegi bi def nag mooy góor gi laal ab sawukaayam te fekk sawukaay ba taq ca moom mu laale ko nag biir tenkam wala wetu tenkam baa mu laale ko biir baaraamam wala wetu baaraamam te it mu laal ca jëmm ja laalu ci kaw tubéy baa sigit jëmm ja la laal kon góor googu njàppam toj na doonte sax baaraam ba mu laale sawukaay ba day baaraam bu juróom benneel ba juróom ñaareel nga xam ne bokkut ak juróomi baaraam yi doomi aadama baaxoo am moom daam juróom benn ba juróom ñaar mu laale ko nag baaraam bu juróom benneel ba juróom ñaareel su fekkee na mu yéege ca ya ca def la yéege ca yooyee dolli ko na mu soppandikoo ci baaraam yi nit baaxoo am noonu lay soppandikoo itam ci ya ci yokku mbaa ba ci yokku kon baaraam ba mu ca laalee sawukaay ba nii ñu wax rek njàppam dal nay toj waaye su fekkoon ne sawukaayam taqul ci moom dafa dagg rot fee mu door koo laal wala laalewu ko biir teng wala wetu teng laalewu ko itam biir baaraam mbaa wetu baaraam ci biti teng fi ñuul la ko laale ba tey kon njàpp ma du toj ba tey bu laaloon ci kaw tubal waa ci kaw silibit loolu jëmm ji ba tey jàppam du toj bu lépp nag bu dee mag la ñuy wax waaye bu dee gone moom laal ab sawukaayam mbaa laal keneen du tax am njàppam a toj laal bunt suuf bi du tax njàpp a toj laal yaari waa yàlla yi du tax njàpp a toj jigéen wax ji gën a wóor mooy ak lu mën di laali ab sawukaayam du tax am njàppam toj bu jëloon benn baaraam ba ay baaraam baaraam dugal ca biir it te tax am njàppam te boobu wax lañ gën a sukkandikoo li nga xam ne mooy toj njàpp te lu am toj doot lu xewat toj leneen la mooy génn ci lislaam mooy benn ba ku nekkoon ci lislaam gannaaw ba mu wax lu ko ci génne mbaa mu def ko bu fekkee mi ngi woon a ku njàpp njàpp moomu toj na buñ ko waaroon mu tuub ñëwaataat ci lislaam it faaw day jàppaat rek njàppam moomu toj na ak mu wóor ko ni moom jàppoon na waaye léegi nag xamatul ba xam njàpp moomu toj na wala tojut ci am xelam dara sikku ca dañuy jàpp ne njàpp moomu toj na li fekk jàppaatul du mën a wóorlu ne amee nam njàpp su jàppoon ci xolom ne mi ngi comme njàpp nattab liwu ko bu dem nag bay julli ba ca biir buy sikki sàkk ba xam ah ndax jàppoon naam jàpput loolu moom dafa diir lool dañuy jàpp rek ne jàpputoon mu war a dagg julli gi dal di war a dem jàppi ba tey it bu doon julli ba ca biir mu wóor ko ni moom kat jàppoon na defoon na it luy toj njàpp muy sikki sàkk fii mu nekk ci biir julli gi njàpp ma ak def ga lay toj njàpp lan moo ci jëkk ak lan moo ci mujj su ko wóoroon ne njàpp maa jiitu lay toj topp ca wóor ko ne kon yoratum njàpp su ko wóoroon ne it lay toj njàpp moo jiitu mu mu jàpp teg ca mu daal di koy wóor ne kon mi ngeekum njàpp waaye day sikki sàkk nag lan moo ci jiitu ak lan moo ci mujj kooku it la gën a wóor mooy na dagg rek dem jàppiwaat ndax loolu it dafa gis lool li ci mujj nag mooy wóor na ko ne jàppoon na wóor na ko ne it defoon na luy toj njàpp xamatul nag kan moo ci jëkk ak kan moo ci mujj su fekkoon ne ndab maa jiitu lay toj njàpp topp ca dana ko wóor ne kon amewul am njàpp su fekkoon ne dafa def lay toj njàpp gannaaw ba mu door a jàpp mu wóor ko ne kon mi ngi kum jàpp waaye léegi xamatul nag yooyu yaar kan moo ci jiitu ak kan moo ci mujj dañuy jàpp ne kon njàpp ma moo jiitu lay toj njàpp tegu ca yàq njàpp ma mu daal di war a jàppiwaat loolu moom ak jàpp ndal la su ko wóoroon ni moom jàpp na li mën a jàpp ci xelam daal moom mooy mi ngi kum jàpp ba tàmbalee julli ba mu nekkee ci julli ga nag muy sikki sàkk ba xam ndax njàppam moomu toj na wala tojutoon kon du dagg julli ga ndax ba mu ciy dugg amoon na wóolu ne mu ngi kum jàpp waru koo dagg nag kon ci rek sikki sàkka ba ci njor sax du tax mu dagg di wéy rek gannaaw ba su ko wóori ne amoon num jàpp baax na su fekkee nag noonu la wéy xamaatu dara ci njàppam moomu nag kon say moomu jàppaat julliwaat waaye moom daal moom nekkee julli ga di xel yaar ba xam njàppam toj naam tojut na wéy rek ci julli ga ci lu war ndax koroma julli gi wari su koo dagg ci kaw rek njortu mbaa sikki sàkka gannaaw ba doonte daa dem ba sëlmal doola wóorlu ne amoon nam jàpp it du ko tee baax du aajowoo muy baamu su fekkee nag sikki sàkkaam googee dañul nag faaw mu war a jàppaat julliwaat boole ja nga bañ koo jaawaleeg nag mu jàpp ne yor nam jàpp armal ba tàmbalee julli xelam nag di xalaat ba xam ndax jàppoon am jàpput kooku moom daa diis lee nga weesu léegi mooy wóor na ko ne jàppoon na te loola moom ba tey dogu na ca dam doon sikki sàkk kay mooy ndax njàpp moomee tojoon na wala tojut bii nag moom mooy bi nga xamee ne daa dem ba ci biir julli gi muy sikki sàkk ba xam jàppoon naam jàpputoon kooku moom mu dem ba ci biir julli gi muy sikki sàkk wóor na ko ne jàppoon na wóor na ko ne it defoon lu toj njàpp waaye xamut kan moo ci jëkk mbaa kan moo ci mujj yooyu ñoo bokkaatee faawu day dagg wutiwaatum njàpp tàmbaliwaat julli ba tey nga seetlu ne bu fekkoon ne xelam dara sikku ca laata muy tàmbalee julli nag lay sikki sàkk ba xam njàppam toj na am tojut dañ koy wax ne ko sam njàpp toj na demal jàppiwaat li ñu wax kay mooy ba mu duggee julli ba noppi nag te bu ci dugg wér na ko ne am nam njàpp bu dem ba ci biir nag muy sikki sàkk ba xam ndax njàpp moomee toj na am tojut ci lañ waxe woon léegi nga déggoon léegi bu dee it koo xam ne xelam dafa baaxut day gaaw a sikki sàkk lool te bis bu ne mu dal ko ni ki moom guddeeg bëccëg benn bis lañ koy jàppe te guddeeg bëccëg gu ne faaw mu njàpp njàpp noppi gannaaw ba muy sikki sàkk toj na am tojut ku ne jàpp ne xelam moo baaxut te tey am njàppam baax na bu xelam dee sikki sàkk itam na doylu rek njàpp moom yoroo ndax bu ko toppee am xelam day gën a yàqu rek ndax jax-jaxi googu seytaane moo koy def te doo gën a nangu mu gën la koo teg